def ko ci boobu ba léegi suñ gaa yi ñëw war a liggéey ak ñun waa Firi war ñu yombalal liggéey bi ni déedéet nu mu gën a méttee rek pour que Promoville moom du sax liggéey mais li am baam mooy ñoom daal dañoo bëgg yem senegal teguñu ñu ay nit teguñu ñu ay nawle ñëw nañ suñ réew suñ réew am charte am ay ponk yoo xam ne moo yore réew mi ku toll ni ARTP nga xam ne moom moo war a seet lépp loo xam ni noonu la war a demee ci mbiru téléphone ñooñu lu ñu wax firi du ko dégg bu leen ne lii ak lii ak lii demee ngeen waxtaan ndax li ngeen bëgg mënul am duñ ko faale ba ARTP mujj jël benn décision ni léegi man naa fixé prix yi parce que yéen da ngeen a yabaatee. ndax faalewu leen ma te man maa yore mbir mi mais loolu lu muy wane mooy Sénégal war na fippu mooy gouvernement bi war na fippu ndax ñii de état bi la ñu bëgg a yàpp te état nag ñun ñëpp la gouvernement bi la ak ñun kon ni tey mbaq yu di xeexee ñëpp Sénégal yëpp dañ ko war a xeexee ngir dëgg jolli ndax suñuy droit suñu yelleef mën a jolli ci réew mi waaye ñii ñoom sax dañoo mel ni ñu xaw a dof ndax ndox weesuwul ki nga xam ne bu ñëwee di liggéey day yokk say client wut ay client yu bëri ba pare am lu lay compal di la ko jox yow bokk ak say client bopp nga am beneen façon client boo xam ne yow promobile moo ko indi ay millions de clients nga am ci ay milliar et milliards waaye olof jaay nee na ku iñaane sa ndono sa dey ñaaw ndax yéenewuñ sax ñii nga xam ne bu ñëwee dañuy yaatal géew bi fi di gën a bëri ay ay clients ay abonnés ndax abonnés yi nga xam ni ñëpp dañuy ñëw ci promobile am na loo xam ni après Free da koy jël kon kay Free day gën a bëri xaalis man xaw ma ñii dañoo dof xaw ma dañoo réew xaw ma dañoo rakkaaju xaw ma leen dal ndax parce que ñoom daal fonk nit doomu aadama bu ñuul ndax ba léegi ñoom ñu ngi dund beneen beneen àddina mooy fa ñu jógee ay France yooyu ñooñu moom ñun kenn moom du ñu ah kenn moom moomatuñu Sénégal ca kanam Ndakaaru Faye ca kanam Promovilles ca kanam ngir Sénégal taxaw ginnaaw état bi nga xam ni moom wax nañ ko mu taxaw ci di taxaw na ci jël na ay décision nag te war nañu commencé liggéey bi li ñu ñàkk daa bëri ci junni ay milliards et milliards dineen dem ak ñoom ci yoon te bëgg nañ ñu ubbi nag yoon wi ñu liggéey du tere dañu dàmp nampaay bi ñuy laaj ay fukki fukki fukki milliards mën na yegg téeméeri milliards kon boog Free na préparé ndax mane ne moo ko sóob bi dina ko naan waaw na tàng jër nag voilà jërëjëf.